juróom benn fukk ak juróom ñeent sañ-sañu yeesu
asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir tegtal leen seen émission yoonu njub ni ko ñu ëpp ci yéen xame fi nu toll ci sunu tukki ci mbind mu sell mi nu ngiy gëstu ci téereb linjiil bi nettali xabaar bu baax ci mbirum yeesu almasi bi di ràmmkat bi musalkat bi gane ci àddina ngir goreel doomi aadama ci kilifteefu seytaane ci émission yi weesu nag gisoon nanu ni yeesu doon wëre réewum yawut yi di jàngale kàddug yàlla di faj ñi feebar ak ñi làggi ak ñi rab jàpp noonu mbooloo mu bari topp ci moom waaye ñi ëpp ci kilifay diine yi dañu ko añaane woon ndaxte àttanuñu xel mi muy waxe te mënuñu weddi jaloore yu bari yi muy def kon tey dañuy wéy ci linjil ba gis ni borom bi yeesu jànkoonte ak kilifay diine yooyu ci lu jëm ci bésub nooflaay bi xam ngeen bésu nooflaay bi moo doon juróom ñaareelu bés ci ayu bés gi di bés bi yàlla joxoon yawut ya ngir ñu noppalu ci gannaaw ba ñu liggéeyee juróom benni fan waaye borom diine yi jamono jooja di farisiyen yi doon nañu tuumaal yeesu ndax li mu daan def jëf yu baax ci bésub noflaay ba loolu lañu doon taafantoo ngir suufeel ko ndaxte gisuñu woon ci moom lenn lu bon lu ñu ko mën a jiiñ nanu déglu nag li ci mbind mi wax ci linjiilu màcc saar fukk ak ñaar mbind mi nee na amoon na benn bis su noflaay yeesu jaar ci ay tool yu ñor fekk ay taalibeem xiif ñu daldi fàq ay gub nag di lekk farisen ya nag gis ko ne yeesu gisal say taalibe ñu ngi def lu jaaduwul ci bésu noflaay bi noonu yeesu tontu leen ne ndax jàngu leen la yonent yàlla daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña mu àndaloon xanaa yëgu leen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga gis fa mburu ya ñu jébbal yàlla mu daldi ko lekk fekk jaaduwul woon mu lekk ca moom walla ña mu àndaloon sëriñ sa rekk ko sañoon a lekk te it ndax jàngu leen ci yoonu muusa ne sëriñ sa ca kër yàlla ga teraluñu bésu nooflaay bi te tooñuñu waaye maa ngi leen koy wax am na ci seen biir ku sut kër yàlla ga mbind mi nee na yërmande laa bëgg waaye du rendi saraxi mala su ngeen xamoon lu wax joojuy tekki kon du ngeen teg tooñ ñi tooñul ndaxte doomu nit ki mooy boroom bésu nooflaay bi war ngeen xam ne yeesu mi am lu ëpp ñaari téeméeri tur ci mbind mu sell mi dafay faral di tudde boppam doomu nit ki tur woowu di doomu nit ki day wone ni almasi bi suufeele boppam ba jël sunu bindu doomu aadama waaye dafay wone it ndamam ndaxte moom mi suufeel boppam ba nekk nit mooy ki yore bépp sañ-sañ ak bépp àtte ci kaw doomu aadama yépp kon Yesu Christ mooy doomu nit ki di boroom bésu nooflaay bi ak boroom lépp waaye farisiyen ya nanguwuñu woon loolu nañu jëm kanam léegi ngir déglu li xewoon gannaaw loolu mbind mi nee na bi loolu amee Yesu jóge foofa dugg ci seen jàngu te amoon na fa nit ku loxoom làggi noonu farisiyen ya laaj ko faj ci bésu nooflaay bi ndax loolu jaadu na fekk ñuy wut buntu tuumaal ko yeesu tontu leen ku fi amoon xar mu daanu ci kàmb ci bésu nooflaay bi ndax doo ko jàpp génnee ko nit nag ndax ëppul maanaa xar kon def lu baax ci bésu nooflaay bi jaadu na noonu yeesu ne nit ka tàllalal sa loxo mu tàllal ko nag loxoom daldi wér mel ni ba ca des farisiyen ya génn nag daldi gise ngir fexe reylu yeesu waaye bi ko yeesu yëgee mu sore foofa te ñu bare topp ko mu wéral leen ñoom ñépp noonu gis nanu ni farisiyen yi tege tooñ yeesu ndaxte fonkul seeni aada borom dine yooyu ñu doy waar lañu woon amuñu woon benn yërmande ci ñi xiif mbaa ñi feebar waaye dañu bëggoon a gëmloo it nit ñi ne seen aada yi aaye yëf yu baax ci bésu nooflaay bi ci yàlla la bawoo wante yeesu mi xam seeni xol yu bon fàttali na leen li yàlla waxoon ci mbind mi ne yërmande laa bëgg waaye du rendi saraxi mala su ngeen xamoon lu wax joojuy tekki kon du ngeen teg tooñ ñi tooñul ndaxte doomu nit ki mooy borom bésu noflaay bi léegi nag nanu jëm kanam mbind mi nee na booba ñu indil ko ku rab jàpp mu gumbatalu yeesu faj ka ba ku luuka di waxtee gis noonu mboole mépp yéemu naan ndax kii du sëtu daawuda bi bi farisiyen yi dégg loolu nag ñu ne kii ci kàttanu belsebut de seytaane buuru rab yi lay dàqi rab yi waaye yeesu xam seen xalaat ne leen réew mu xeex boppam tas te dëkk mbaa kër guy xeex boppam du mën a yàgg bu seytaane dàqee seytaane nag xeex na boppam kon naka la nguuram di mën a yàgge te it bu fekkee ne man damay dàq ay rab ci kàttanu seytaane seeni taalibe nag ci gan kàttan lañu leen di dàqe kon ñoo leen di àtte waaye bu fekkee ne ci xelum yàlla laay dàqe rab kon nguuru yàlla agsi na ba ci yéen gannaaw loolu nag yawut ya amoon nañu genn màggal moo tax yeesu demoon yerusalem ca wetu benn ci bunti dëkk ba nag maanaam ca buntu xar ya am na fa bët bu tudd betesda ci làkku yawut te ñu wërale ko ak juróomi mbaar ca suufu mbaar yooya la jarat yu bare yu deme ni ka ay gumba ay lafañ ak ay làggi daan tëdd di xaar ndox mi yëngatu ndaxte ci ni ñu ko nettalee benn malaakam borom bi da daan wàcc léeg-léeg di jax ndox mi bu ndox mi masaa yëngu ba noppi jarat ju ca jiitu wopp joo amaan daldi wér ca saasa amoon na fa benn waay bu feebaroon lu mat fanweeri at ak juróom-ñett bu ko yeesu seene mu tëdd te mu xam ne woppam ji yàggoon na lool mu laaj ko ne ndax bëgg nga wér jarat ja tontu ko ne sang bi duma am ku ma sóob ci ndox mi bu yëngoo su ma ciy fexee dem ñu jëkk ma ci yeesu ne ko jógal jël sa basang te dox ca saasa mu daldi wér jël basangam daldi dox mbir mooma dafa daje woon ak bésu noflaay ba looloo tax ba yawut ya daldi ne nit ku wér ka tey bésu noflaay la te sunu yoon aaye na ngay yor sa basang mu ne leen ki ma faj moo ma ne jëlal sa basang te dox ñu ne ko nag ku la ne jëlal sa basang te dox waaye waaye ji xamul ki ko wéral fekk booba yeesu dem na te nit ñu bare teewoon nañu ca béréb ba bi ñu ca tegee ab diir yeesu dajeek moom ca kër yàlla ga ne ko déglul fii mu ne wér nga bul defati bàkkaar ngir ragal lu yées lii dal la noonu nit ka dellu ne yawut ya yeesu moo ko wéral loola tax yawut ya di wuta sonal yeesu ndaxte daan na jëfe noonu ca bésu noflaay ba waaye yeesu tontu na leen ne sama baay nekk na ba tey ci liggéey kon man itam damay liggéey baat boobu moo tax ba yawut yi gën koo wuta rey ndaxte yemul woon rekk ci bañ a topp ndigalu bésu noflaay ba waaye dafa wax it ne yàlla baayam la ba teg boppam yàlla nanu taxaw fii tuuti lu taxoon boroom diine yooyu sonal yeesu di ko wutare li yeesu faj jarat ji ci bésu noflaay ba taxoon du loolu kese dañu ko doon wuta rey ndax li mu wax ne yàlla mooy baayam te ñoom mënuñu nangu ne yeesu mooy almasi bi jóge ci jataayu yàlla ci kaw loolu nag mbind mi nee na noonu yeesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax doom ji mënula def dara moom ci boppam li mu gis baay bi di ko def rekk lay def li baay bi di jëf la doom ji itam di jëf ndaxte baay bi bëgg na doom ji ba di ko woon lépp lu muy def te dina ko woon jëf yu ëpp kéemaan yii ngir ngeen gën a waaru maanaam ni baay bi di dekkale ñu dee ñi di leen jox dund gi noonu la doom di di joxe dund gi ñi mu ko bëgg a jox baay bi du àtte kenn àtte bi yépp jox na ko doom ji ngir ñépp di teral doom ji ni ñuy terale baay bi ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund su ma seedelee sama bopp sama wax du am maanaa waaye keneen moo may seedeel te biir na ma ne lu muy wax ci man dëgg la yéen yónni ngeen ay ndaw ci Yaxya te seede na dëgg gi man ci sama bopp soxlawuma seedes nit waaye nag damay wax loolu rek ngir ngeen mucc Yaxya meloon na ni lamp buy tàkk tey leeral te nangu ngeen a bànneexu ab diir ci leeram waaye yor naa ci man seede su gën a mag seede si ma yaxya di seddal maa ngi def jëf yi ma baay bi sant jëf yooyu may def nag ñoo may seedeel ne baay bi moo ma yónni te baay bi ma yónni moom itam seedeel na ma mësuleen a dégg baatam te mësuleen a gis xar kanamam te kàddoom saxul ci yéen ndaxte gëmuleen ki ma yónni yéen a ngi gëstu mbind yi ndaxte dangeen cee yaakaar dund gu dul jeex mbind yooyu nag far ci sama mbir lañuy wax te bëgguleen a ñëw ci man ngir mu am dund wutuma tàgg yu jóge ci nit waaye yéen xam naa leen leer na ma ne amuleen ci seen xol benn mbëggeel ci yàlla man ñëw naa ci sama turu baay te nanguwu leen ma waaye bu keneen dikkee ci turu boppam ngeen nangu ko bëgg ngeen ku leen di tagg te wutu leen gërëm li jóge ci jenn yàlla rekk ji am kon nan ngeen mën a gëme bu leen xalaat ne maa leen di jiiñ dara ci sama kanamu baay muusa mi ngeen yaakaar moo leen di booleeg moom bu ngeen gëmoon muusa dingeen ma gëm man itam ndaxte seedal na ma waaye su fekkee gëmu leen li muusa bind kon nu ngeen mën a gëme samay wax ndax dégg ngeen ni borom bi yeesu yedde woon farisiyen ya ko doon wutare ci tënk nee na leen ku weddi almasi bi wu yàlla wàcce weddi nga yàlla moom ci boppam ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ku nanguwul waxi yeesu ak sañ-sañam nanguwuloo waxi yàlla ak sañ-sañam waaye képp ku gëm yàlla ak kàddoom dinga gëm itam ne yeesu mooy almasi bi jóge asamaan ndaxte yonent yàlla yépp seedal nañu ko képp ku xam te gëm bind yonent yi dinga xam te gëm it ne yeesu doomu maryaama mooy ki yàlla fal ni musalkatu àddina si ngir képp ku ko gëm doo sànk mukk waaye dinga am dund ku dul jeex moom la yeesu waxoon boroom diine yi bi mu naan yéena ngi gëstu ci mbind yi ndaxte dangeen cee yaakaar dund ku dul jeex mbind yooyu nag far ci sama mbir lañuy wax te bëgguleen a ñëw ci man ngir am dund bu leen xalaat ne maa leen di jiiñ dara ci kanamu sama baay yonent yàlla muusa mi ngeen yaakaar moo leen di booleeg moom bu ngeen gëmoon muusa dingeen ma gëm man itam ndaxte seedeel na ma waaye su fekkee gëmu leen li muusa bind kon nu ngeen mën a gëmee samay wax amin mbokk yi ngeen xalaat bu baax ci wax ji ndax yàlla dafa bëgg a leeral seen xel ci loolu lépp yàlla dafa bëgg dëgg nekk ci sunuy xol sunu waxee ne gëm nañu yonent yi kon fokk nu gëm ki ñu doon seedeel maanaam almasi bi yeesu ndax ci dëgg gëm nga yonent yi kon fii lanu war a tàggoog yéen tey ndaxte sunu jot jeex na waaye ni ngu leen di jox dox daje njàng mi ñëw ngir jëm kanam ci nettali bu neex bi ci mbirum almasi bi yeesu nu ngi leen di fàttali ne émission yi ni def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am mën nga noo bind te dinañu la wax ni ngay def ngir am leen su fekkee itam ne ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la gën a soxal mën nga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis bu leen fàtte def seen adresse ci mbind mu leer jërëjëf yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li borom bi yeesu waxoon pharisien yëpp bi mu leen naan su fekkee gëmu leen li yonent yàlla muusa bind kon nu ngeen mën a gëme samay wax